bibliothèque bi li ko tax a jóg mooy jàppale xale yi euh, en dehors des heures de classe ñu mën leen di defaral ay formation en leadership mais également di organiser ay débats ak ay échanges ci ay thèmes yu intéressants programme bi ñu doon waxtaane tey nag programme numérique la boo xamante ne ñu ngi ko commencé depuis deux mille vingt trois euh, deux mille vingt deux deux mille vingt quatre tamit ñu ngi day di def beneen session boo xamante ne mai lay jeex. li ci bees mooy nekk euh, bi ñu demee ci rencontre bi jot nañ mën a rencontrer Technovation Globale waxtaan ak moom ba mu gis intéressant programme bi euh, ba loolu tax na ñoom dinañ ñëw Sénégal pour installer fi ay bureau ndax gën ñoo mën a jàppale ci formation bi